ñun Serigne Touba la àndal yoon wi yoonu murit Serigne Touba ko moom moom la àndal te itam li sëñ Abdoulaat waxoon rek yoon wi ku ñu fiy topp Serigne Touba koo xam ne jiwoo nga ak Serigne ak koo mën a doon ñëwal ginnaaw ànd ak yoon wi Serigne Touba moom moo ko rëdd moo wax ni mu ko bëggee li fi am fan yi neexul benn murit wax dëgg yàlla li ci des nag. mooy sëriñ bi wax na ñun ñëpp dañuy tënku ci li wax ñun moom naka jekk ñun sëriñ Saliou Thioune lan àndal ndax li war a am mooy am te bi yoonu murit tàmbalee ba tey baaxam mooy bu fi kilifa nekkee ba wàcc tàmbalee ko ci sëñ Tuubaa continuité bi mooy doom doomam mooy wéyale liggéey bi ndax yoonu murit bu dee samp na ba fi mu ne ñu koy wax bu fi sëriñ Tuubaa jógee sëriñ moo Modou mustafaa moo yor lépp di ko doxal ba tey jii sëñ Muntaxa yor ko kon loolu mooy continuité yoonu murit mënuñ koo rafetlu ndax rafetul kilifa gi toll ni sëriñ Muntaxa di sëriñ Tuubaa murit yëpp yaakaar ko bu génnee wax amul luñ ci war a teg lu dul jëfee ndigal li sëriñ tubaa dana laa tafalu seen bi xëyri isni fal isnu sartun fi xabooli sax nii murit moom lii dëggal ak muritam mooy bu ndigal rotee mu jëf ko sabre autant mu nekk fi naan c'est-à-dire seeka moo tax mënuñ koo rafetlu li ko war moom soxna si war bépp taalibe murit mooy bu ndigal wàccee nga jëfee ko ci saasa te ndigal li mooy bépp cantaakoon topp ànd ak sëñ saaliw cuun topp ci moom sëñ saaliw cuun ànd ak sëriñ seex sa ànd ak sëriñ seex sëriñ seex ànd ak sëñ Muntaxa mi sëriñ Touba. yoonu mu murit kenn amu fi doole sëriñ Touba rek a fi am doole koo gis ne am na doole dañ koy wax noonu rek waaye li sëriñ Touba def ci yow bañ na bañ koy tuddee doole balaa ngaa xam ne du doole nga nga opposé sëriñ Touba amul kenn ko am kàttanu kattanu opposé sëriñ Touba muy jàll te ndigal li mooy ànd ak sëriñ Saliou Thioune ku ko deful yaa ngi lorlu sa bopp. maa ngi ñaan Serigne Saliou Thioune mu yàgg fi te wér maa ngi ñaan mu Mountakha Mbacke mu yàgg fi loolu te wér Serigne Cheikh Saliou Mbacke mu yàgg fi loolu te ak mboolem njabootu Serigne Saliou gi. yoonu murit baaxoowul lii yoonu murit dafa am nu mu baaxoo yoonu murit dafa am nu mu baaxoo am na ci loo xam ne waxuma sax ci yoonu murit mais ci diine ji ñu bokk ci maanaam ci ci maanaam ci luñ tënku maanaam rafetul ci yoonu jullit ndax mosoo gis fu jigéen jiite góor mosul am ci àdduna am na loo xam ne nii tënkut ci tënkut ci lislaam tënku ci Islam. franchement ñun dañ bon ñu koy ñaawlu diko diko nakarlu diko naqarlu di Lama lool la wax chaque jour ku ci nek rek fa nga fete nga fa do fete ku ci nek fa nga nga top da nga ko top mais li jekul soxna si fim tek tankam ni nii son lum lu mu gaaw mu tegi parce que moy li gën ci mom gën ci ñi and ak momit way man tam damay xawoo damay xawoo a tuti tuuti yimay yi moy tënku mooy nga serigne touba nga gëm te serigne touba di serigne mi tok joxu ndigal teunku cay waxam nga bëgg a wax jooju non teg leneen man dama man nak damay xaw damay damay damay xaw damay xaw am luma naxari ah lu ya lu talib Cheikh lu doom Cheikh ci waxon ñu lay Baay fall lañ ñu lay góor yalla lañ duñ top ci ben jigen luñ sukkal kenn ñun Serigne Touba ak Serigne Mountakha rek lañ sukkal barki borom Touba am lo xamna ni bokul sax ci tegawut sax ci manam ci yoon ci yoonu jullit tegawu ci su ma soñon de man lu mu wara a def ci lu mu gëna gaaw ci lu mu gëna gaaw mu top ci ginnaw serigne Saliou Thioune su ma sañoon man mu topp ginnaaw sëñ Saliou Thioune dem jégalaat xalifa bi parce que dégg naa xalifa wool na ko ba ñu wax wax mais ba mu génne la mu ca teg ku ne dégg na ko lii doxewut ci yoonu murit